bu ñu jógee ci loolu nag noonu laay xuusee rek ñu dem dugg ci làmb ji wax naa ko léegi bi may nuyoo nee naa ne Issa lu nekk da koo def ci làmb Issa Pouye euh, kuy seetaan làmb wala koo xamante ne amateur nga wala ngay supporter diw xam nga kuy Issa Pouye ndax Issa Pouye euh, ndaanaan la ci wàllum bëre ndaanaan la ci wàllum bëre bu tuusee mu neex bu bàkkoo mu neex daanaka daal mooy kaymaa de caawe mais Issa Issa man suma problème mooy Issa bëri na fekk ay ndaanaan. mais Issa kenn du ko gis Issa kenn du ko dégg Issa mënoo bëreeg ténor bu toll ni Balla Gaye Modou Lo Lac de Guiers Zos ñeneen ak ñeneen ñoo xam te ne mënuma leen lim mais Issa kenn du la gis booy nekk fi ñu ma lim ñii ne ñoom nga fi bëre fi mu toll ñoo téye làmb mais Issa Pouye kenn gisu ko lan mooy sa problème Issa. waaw loolu du problème parce que xam nga problème mooy làmb ji ñi làmb ji suñu bëggee ma feeñ dinaa feeñ. bu ñu bëggee nga feeñ. dinaa feeñ. parce que làmb fii Sénégal fii làmb ji ku mu bëggee ku mu bëggee da su ma bëggee wàcc wàcc kese la ñoom ñi ñoom ñi ngànk làmb ji di nuyu itam Père Gaston maa ngi koy bu baax parce que Gaston bu gën a xaw combat maag Forza yaa ngi dégg la yàqoo Gaston laaj Gaston woo na ma ko moom Issa yaa gën a xëy tool combat si làmb parce que mu doon tax avant mu bañ te waxe yéen isaa man daa ragal man ta xeex te gars yi sawaroon ci man moo ma jaaxal waaw mais man loolu jaaxal na ma parce que la nga jaaxal kan xam ma jaaxal wax naa leen ko man leen man nit ñi may may supporters yi ñoom may man bëri bëri ak seen staf ñu ma ku ci gis sama doo nalaw barke alxuraan karim parce que xam nañ sama kër xam may kan bu baax mais Issa Issa yow Issa gaa yi nee ñu gars yi nee nañu Issa mënul xeex yow nee nga léegi Issa Pouye amul mystique mais léegi lan la gars yi di ragal ci yow. demal la dégg ma la xam nga senegal Sénégal dafa doon dëkk bu neex ndeysaan te yàlla gën a neex yàlla na jàmm gën a yàgg. naka la neexee. non dañuy toog da ngay ko añ bu suur wax xam ni sax si xam ay combat ni mu mhm. ci gisee nit. ji kenn mën si xool gisee ka non non. day juum. léegi yow léegi yow boo ma doon jox exemple ci nan lañ mën a jugé mbër. waaw ah, dëgg man mën si laa nit mooy làmb ji xam mu ngi la wax si mooy benn am nañu bëri wax ne nii làmb jaay na ne te tey yow ànd fa su ma ko dugalee tey yow sooy ji su seetu yàlla dugal la fa soo jeexee da ngay daw. barka Alxuraan karim làmb dafa yéeme benn affaire la dafa lus quoi mais naturel nit naturel rek su nga mën a xamee nit mais làmb kooku mu nekkatul moom leneen la. su ma déggee wax ji mooy euh, da ngay am ay komba di ci daj yoo xamante ne wala Issa Pouye mi daan gis du boobu Issa Pouye la ñuy gis wala waxee woo foofu. waaw dama la dégg man la ku war a daan nga daanu dégg dama man nit kese la cinq dafa la am si am am dix-huit victoire ku war daan nga daanu. Balla Gaye koy daan damaa war ndomb Balla Gaye amul ko dàq bëri si làmb ji macha allah ma dindi ko daan ko kon foog naa ni su ma nekkoon cuune Balla Gaye ku war ndomb nga rëcc ku war ndomb nga fexe ba wuraakoo ndomb daan ko loolu mën a bëri fa la mën a yem man jël ma daan taxawaat ma léegi doo ko gis si ba léegi amagu ci làmb ba léegi am làmb maa ngi doon dafa ko kenn ken Gaye jël ma ko daan hmm? am daan daan rukk te wax jël ma ko daan ba léegi gisaguñ ci koy def amagu prix boobu ba léegi amagul ci làmb ji naa bu def ni def naa ci làmb ba léegi gisuma mbër mu ko def làmb ji kat li ci am mooy hmm? promoteur yi ku mu bëgg yëkkati da lay yëkkati te am promoteur am mais d' accord naa wax parce que boo xoolee bi nga jógee ci kalaafu 2006 bi. lu taloo jógee. waaw bi nga jógee da jógee seeguma foofu bi nga jógee ci am fa ay victoire am fa défaite benn défaite benn défaite la dëggee waaw la dëggee daan la nga jógee fa amaat kan. Balla Diouf daan ka. Mhm. dégg nga man la. non dama bëgg xam dama bëgg xam parce que dama dem da nga dem ba benn instant tam. Issa Pouye mu ñu doon gis gisatuñ ko combat yi dafa yomb combat yi doo comprendre ban Issa lañ daan gis parce que yaa ngi fi lim léegi nee nga ni nga daanee euh, Balla Gaye ni nga daanee Tapha Tine ni nga daanee Tapha doo gis ko jël bu ko daan mais Issa Pouye boobu ñu daan gis gisatuñ ko waaw Issa Pouye la suñu borom moo war a xañ xañ ma rek billaahi wala man sax affaire damay jaaxal yaa ngi man ku ma naa daan ci làmb ma weddi ko man ku la waxoon di nga daanu ci làmb nga weddi ko billaahi lu tax loolu ndax tellement li daje xam naa te du musique dara lu mu borom may xam-xam rek xeex lépp ah mu nekk ci man macha allah man foog naa naa bëri ba bëri. Isa xeex moom mënoo ko Isa. gars yi ah, la dégg nga ma daax ci laa de te moo dee ba léegi mosuma am mosu taxaw nii ma tëf mu dal ma ko mosu am. non sa combat xeexu leen fi daal loolu moom xeexu mbedd ngeen fi xeex. dafa naan ka combat boobu du combat. du combat. boobu Isa ñëwul quoi na entraînement combat boobu combat boobu la am sa bëri te entraînement mi maa sos. jàppante di xëxët di dooku yi loxo yi du jóg. yaa ngi dégg combat la am sa bëri si àdduna te entraînement parce que combat boobu dafa combat bi yàqal woon mu def dix jours te di dama damay récupéré waaw sama bi ñu ma commencé waat entraînement yi yaa ngi dégg. combat lu ma fay baax man xam nga ma jël kam maa ko man yaa ngi dégg daanoon naa ko ba koy daanaat préparé wu mu ngi préparé nekkuma ci mais loolu bi nga xam ne ju mu ñëw ci mbër mu daax ci làmb ji te foog naa ne mbër mu ragal da ngay wane ginnaaw man da làmb léegi ma jàkkaarloo sama adversaire mu mel noo xamante ni su ma nekkoon ragal ah kon damay doog génn ma làmb doog génn damay ñëw ñibbi kon non mais dañ naan Issa Sa boo ko eh, la ay wax la rek jàmbaar daan moom yaa mën lépp soo daanoo mënoo dama la fi toolaw jigéen dama la man ku ne curé su ma nekkoon curé du ma daan ñu ma daan ku naa baal gee doo cuune hmm. te baal gee bokk na si mbir yi téye làmb ji nii yaa ngi dégg Modou Lo maa moo ma daan mais te Modou Lo daanu Balla Gaye. Mm-hmm. làmb ji fii koy mën a fi kenn xamal la daanaan dara rek. Eumeu Sène xam ndax Balla Gaye ñaari yoon Modou Lo daan ko ñaari yoon xanaa kat ñoom ay cuna fii kay mën a fi kenn xam lu ma am ku suñu borom dimbali. man de ah làmb jox dëgg yàlla sant naa yàlla de baax te sama mbokk xam ne làmb moom sant naa yàlla bu baax di nuyu kii caari gi yëpp di nuyu Joos Baami Joon sama yaa ngi dégg noonu Diop sama rakk yi ne fii mbëri ñaanal Reug Reug Ama Dem yaa ngi dégg Gérard Mbodj di ñeneen ñaanal kii waaye Reug Reug am fee yàlla mekk ci ndam waaw ke ñaanal Sénégal gi mu que drapeau la yóbbu ke yàlla combat bi yàlla mekk ci ndam fii nag moom xam nga fi am kii mën a fi kenn suñu borom dimbali am te am 18 victoire 5 défaites la am si làmb ah waaw sama sant yàlla man dama góor kon naa ko fi dem naa ba ndax mujj gi dama war maanaam ndax mbooloo mi dugg bi mais suñu borom moo fi ne mooy dimbali ñëpp di nuyu sama gaayan ba Tamba di nuyu sama rakk alaaji yaa si man sama rakk alaaji am njuga a Sène yaa ngi dégg ak Bouba ba Njàmm ñoo ñëpp ak ban goote yaa ngi dégg gaa yi ñu sonn man billaahi wallaahi sama saal ma entraîné tooma sonn ci man tooma day sonn ci man suñu président maa ngi koy gërëm tamit Baba Ndiaye Ndour. foo dem ñu sant gërëm. waaw xam moo boole nga bo balaa boole nit ñi boole boole yaa ngi ànd nit. Mhm. li nga def nit ak a defar. waaw nit ak kon àdduna waxante yàlla sama doomu waxante yàlla. Mm-hmm. parce que ma toll am problème yoo xam ne nii tamit kay génne tamit kon fonk nit dafa fonk yàlla man làmb ji xam nga sama la ma la ma ma tee tee roi bi nii laaj ma lan la. <laughs> loolu kay bëgg naa léegi la ma tee tee roi bi. ñàkk am combat. gars yi nii lay ma ko barke alxuraan ma àgg fa roi bokk mu der xalal da nga di ma wax rek. waaw man gars yi maa nekk doole benn ma naturel laa doole. maanaam dàq bëri ma seen sëñ li may daj sama yaram yi ñoom antunu ko ñoom koy daf faatu xam nga sama problème hmm? xam nga sama problème maanaam ñu leen te gis ma xam su ma xam tëggee man kon weesu naa fi yàgg. waaw mais promoteur yi fan lañ nekk. ah. man am naa fi huit ans laa jugee nii. waaw ba ba tey ba ñaata at laa toog bureau ma. solo yoon la. sept ans xaw ma six ans. waaw solo yoon la. ay Balla Gaye Modou Lo day teg ay taxawaat day daan fa ko ñu leen continuer dëgg. comme làmb ji léegi yow léegi lan la quoi laa bëgg léegi ma ko la. dafa am loo jotee ak promoteur yi wala lan. maa ñu dara promoteur mhm. samay bàyyi na tafatin maa dëgg ñu wax ay te ba làmb làmb moo tax a yaa fa yàqu làmb yi baax dëgg wala nga seeti leen da la seeti revanche ba pare jëma jël revanche. waaw mais làmb ji léegi yàqu léegi. ba ne business la ba ne. Issa Issa ku la andiloon avance Tafaatine est-ce que di ko jël Issa. parce que alxuraan Tafaatine bañ Tafaatine nga seetee maamu daa bañ. non day bañ parce que dala raw. déedéet maa raw laaj ma dafa maa raw xam nga yoon te ma maa ko mu daan maa ko am mu am fit may man kenn mu maa may ramas li laa man kenn am fit bi man may mu ramas ku ma si daan nga alhamdulilah pare doo tax xaas bëreet a si àdduna te wax dëgg daan naa moo taguñ mu ñëw di ko may doon bañ. waaw loolu dafa mel ni la kon gaynde gi gaynde yi mele mele la mais gaynde dëgg du wax déggu ma la sa man xool. billaahi wallaahi doo jëloon si mi nga dem si Modou Lo ay nga laaj leen ndax sa am na fi amu fit dañ naan kooku dof la fekk na dama dem mbër mu yaru nag loo yoroo ñaare ñun da ngaa ragal Sénégal doo bëree wax ñu da nga am fit loolu moom jikko Sénégal mais maa ngi ci réew mi su ñaari comme doo fit xam-xam comme doo ko wax da ngeen am kaw noppi rek si génn nga génn. dégg ngeen mbokk yi fit ak xam am ku ne doo ko wax euh, mais Issa léegi su ma doon ñëw ci mbër yi nga xamante ni woo nga bëri ak ñoom. man man su ma doon lim am na ñenn ñoo xam te mën naa lim mën naa lim Garga Mbossé sa adversaire la Sa Thiès sa adversaire la euh, kii di euh, Lac Rose yak ñoom sa combat leen yàq làmb ji. mbokk na ma am mbokk na yu jege sax. kon doo bëre Lac Rose. non non mbokk yi jege ñoo bëre yaa may dégg maanaam man làmb ji. Mhm. mu réew mi tamit méttuma kenn. su ma doon su ma bëggoon su ma doon wax nii Issa limal ma quatre wala cinq mbër yoo xamante ne nii jàpp nga ni combat bu neex la yow ak ñoom ñan nga may limal. waaw dégg man la maa Garga Mbossé combat neex la yaa làmb ji xaw ma si am naa la man mbër man Père Gaston maa ngi koy nuyu bu baax di siyaar wax dëgg yàlla sonn na sama combat mu am combat. yaa ngi dégg seet na bu yu bëri ñu bañ yow boo ko gën a xale tor kon Issa mu bañ ndax gars yi ñi ma ñu la parce que gars yi nekk nii rek ñi ñi wax nii rek kaw nii mais kon su fëgg nii. nga bañ maa ngi fàttaliku ko père kii Aziz Aziz Aziz mi nekkoon dëgg lamb yi. Aziz Ndiaye. déedéet benn mi. Euh. moo nekk nekkoon pas caare. Mm-hmm. tam daal tag nag yi ak bas. Mm-hmm. maa ngi fàttaliku waa waa gën a nekk boobu ñu maanaam seen oto ñu ngi toog ñu may toog combat kër gu ñu duggee ñu ne isaaf bi gars yi bañ ñu cun nawaat kon seen oto ñoom ñu dem di wëtal combat ku ñu dem nekk isaaf bi nga bañ loolu dafa yàgg si man xam moo tax c'est que doo mën a bëree lay meetu xam nga kan nag sawar kuy xeex ñu laa gaaw daan man mbërum mbërum xeexkat moo gën a neex daan mbërum bërekat xam nga tey ji nag ndax doo ñëpp a ko man goos góos jàppante jàppante nga ñàkk mën a bëri boo gën sax nga a xeex mën a mais est-ce que gëj bëri bi tamit euh, du tax euh, nga perte ay ci làmb ji. non xanaa ko toog mooy man maa ngi contact daf ma war a maa ngi def ma war a def kañ. man war damaa bàyyi ma man daa ngi si làmb maa ngi bugg def si éléments yi laa ko dugg kon ñi xam ni Sénégal kon wax ka ju noppi. sama maa ngi préparé loo xam ne nii dégg la jàmbaar dégg nga la. nee naa la fit ko am doo ko wax da ngeen jëf yi gaa yi gis dinaa jëf ñu gis teg seen bët ñoom. li gaa yi di wax Issa Pouye mënul. làmb làmb mi tuul làmb ji nii. waaw. Oh. amit ñun saa ñu danoo xeex xeex ñu ay lëbu na danoo xeex xeex ba tas ba ñu xam dëgg doo laaj ci Issa bi danaa kooku gënoo sadik si àdduna c'est que làmba nit ñi wax daal li ñuy wax rek. naa leen bàyyi ñuy wax loolu jikkee Sénégal la yaa ngi wax moom moo ay jàll la fi sant yàlla sant yàlla Sénégal doo mën a xeex ñu mën a bëri doo mën a bëri ñu mën a xeex wax naa ko doon ko waxal Balla Gaye naa ko mën xeex bëri la man. Mm-hmm. kon loolu man je suis fier quoi ma xam noonu kontaan naa ci ndax jiguma ma ku ma daax ci làmba ji jiguma ma ne ñu ñu arbitre la may daw làmb na fi moom da ngay daan bàyyi daan rek su ma doon daan da lay doon daanu ay naka ay caasi boxeur yu mag dañuy ñu daanu man su ma doon daan man su ma ko defee su boobu dama xam ne loolu lu waram la parce que aspect bi ci nekk dara jomb la ci loolu la mën la la ci def monsieur champion la. xamal nga Modou nga doomu daanu te Eumeu Sène daanaan la yaa ngi dégg da ko doomu daanu kon làmb moo bind noonu jour boo xam ne sa bis sa moo defoon xaaral man damay bàyyi làmb ma ni boor ñu maa daan sama. kon léegi man wax ji leer la kon xam nga lu am solo wax ni ma amee combat mais kii la daan ak yooyu moo làmb ànd sa liggéey bi liggéey nga jum si yow. léegi damaa bëgg nga xooloon ma mbër mu am fit bu mel ni Issa Pouye mu leer ni Issa Pouye bu taxawee ni kii gis naa ci moom jàmbaar gis naa ci moom fit gis naa ci moom jom te su ma sañoon jëflante ak moom ndax Issa nee na am combat moo ko téye téye roi des ndax ni ñuy tëggee mbëri bu ñu ko ko tëggee léegi mu nekk roi des arènes li man ma ñaa ñoo xamante ay ñii mu leer na la ne ñii Issa bu leen promoteur set set duñ delloo avance bi. làmb ji moom. loolu ni Sénégal ñoo gën a xam loolu Sénégal ñoo gën a xam li man fi ñuy téye gars yi yóbbu gars yi ma fa yóbbu waaw léegi limal ma ñaar. waaw léegi man la. Malick Niang moom xam naa ne moom du delloo sa avance moom. Malick Niang ne du bëreeg man sama mbokk la ko ne du bëreeg man Malick Niang maa ngi nuyu bu baax ñu bokkoon saal fee ne du bëreeg man yaa may dégg. làmb ji li moo ko yàq mbokk mbokk mbokk mbokk mbokk. oui ma dama dégg ma la Sa Thiès daa am combat. amul combat combat. yaa ngi dégg Sa Thiès ma am combat bu neex la Garga ma am combat bu neex la mais làmb ji ñooñu doon koy ne isaab bi day bañ. Garga de moo ngi fee ci États-Unis di waaj. koo si ne isaab bi day bañ. Sa Thiès <laughs> Garga Mbossé seen combat bi ñuy laam-laamee naan dina taxawam du taxaw. Issa Pouye nee na ñëw na tas na diggante bi. ñoom ñoo ma leen chance parce que maa ngi roose lamb foofu ñooñu xoolee ñaa ñooñu nga lim ñëpp ku ci nekk bëre nga ak magam. da nga ne daan naa magam nga yaa daan naa magam. waaw ba tey ku ci nekk daan na sa mag te waaw ba pare magam ku ci. léegi Issa dafa bëgg ngeen ñëw leeral ko Sa Thiès Issa Pouye nee na nga ñëw leeral sa diggante yow ak moom sa diggante moom ak Balla Gaye Garga Mbossé na moom sa mag dafa war a leer. waaw daa war nga yaa wax ñooñu ma jël. ñooñu ñooñu duñ ma jël ñooñu. nee man man man man dëgg man la man maa ngi bëri moo xam ne koo ma jox par exemple bi moom si ma war a bëreel su ma d'accord par exemple bi dama la man gaa yi ñoo ma demee daw ma kenn. baatu nag bu ràmm nga nag yee lay daw waaye doo daw nag <laughs> man damaa wóolu sama bopp billaahi xaw nee naa la sañ doo ko amee jarul nga koy wax. fi mu toll nii benn Issa Pouye gis. la sañ-sañ doo ko amee jarul ngay wax quoi fit ko doo ko wax da noppi gerte rek yow man la man du jaru quoi nee naa la man mu réew mi dama doomu mi mbër fekk sama ko bëgg dem ma njaay ni yaa gën a xëreetul adversaire man ko loolu man tam xam naa loolu xor saa xam nga daal daa mën na xeex dafa dafa garaaw. Mhm. Forza li ma daw sama moom mooy daw ma daw ma ko maa tax nekk Forza ñëw ma daal Forza fekk naa ko fi muy liggéeyam fekk fa nekk yow doo jël sama ma daal. nga dem ba fa muy liggéeyee. ku bëgg a bëgg ak moom. yaa ngi dégg li nga maanaam fit nekkul ay wax fekk naa fi muy liggéey fa mu toog moom fekk fa nekk doo jël sama ma daal leew. Forza kay dinaa ko seeti léegi seeti woon naa ko waaye dinaa ko seeti. waaw ba nga seetee doo di ko wax ci man dafa naa fekk naa ko fa amul na ma wax fekk naa ko fa muy liggéey moom. Mhm. mu ne nekk mbër tey laa jëm te su ma demee yow lay dëkk doo jël sama ma daal leew maa la mën fuuf xanaa dafa am foo ko dugal avant. dugal waaw yow la man si ma laay génne li nga ma la fit nekkul loo xam ne kenn seen jotee war a génn day génn man la man. Hmm? ma yëpp laaj rase dëgg yàlla saa yu mbokk mbir noonu mais dama la amul kenn ku si am na yow li may xar ñaar yow xam nga sama damay dina la bu doyal barke Alxuraan am ku may bëri yaakaar ma nga maa wéngal sax di xalaat. léegi roi bi kii da ko yor un kii yor ko ki ans kii yoraat ko un an jóge ci kii demaat ci kii noo gisee roi des arènes bi boo daanee diw nekk roi des arènes daanaat la nekkaat ko kee daanaat ko noo gisee loolu. waaw su fekkee roi ni nga ko tuddee kañ su fekkee ko tuddee noonu kañ kon ku dànk roi kañ roi bi. waaw bu ma ñëwee ñëw dànk ñu mooy roi bi. Mm-hmm. ah ñoo ko déggoon kat kon moom am na droit ni mooy roi bi ndax jàngatee. ci diggante euh, Ama Balde ak Modou Lo coow li bari na làmb ji yàgg nañ koo bëgg noo gisee boobu combat ak nan nga koy analyser. waaw ah, combat bu neex la combat jànq bu neex la. combat bu neex combat bu daax ci combat yi sax moom am na seen rajo gerteem combat bu neex lay doom combat yi combat yi am yëpp wax dëgg yàlla yi neex la ñaanal baabu ñu doon yàlla may kan ndam combat moo xoyantaan Ama dem tamit Reug Reug seen combat moom tamit yàlla may na ndam sa combat mais dama la xam a ñaa mooy combat Modou Lo kii Ama Baldé xam boobu suñuy laale mi jeex. suñuy. mi jeex. incha allah mu jeex. waaw la ko wax incha allah. gaa yi naan dina am xeex bu neex dina am bëre bu neex nga ne bu ñu jàppante benn yoon. mu jeex xeex du bëri sax xeex na rek ñaar la neex rek xeex. day fekk mu neex ñaari mbër. non yow mu doon xeexkat lamb si yàgg a xeex yow nga gàllam tëdd na law kon doo si lamb gars ay sëroo leen dar lamb ji gars ay millions yi fay xaalis bëri maa ngi nuyu bu baax da nekk fee Dakar kooku moo nekk olympique foofu kooku damaa ni moom ñu ñu ñu mu dafa travail maam xeex. takkee nga ñi laaw xam nga ma wax mais yow da nga mën a xeex mu ne man sa waay man wan nga xam dëgg sax nga takkoo nga maanaam ñu ñu ma ne ko yow la nga mën a xam dëgg damaa mën a xeex da nga mën a fit te ne ko ñu wàccante ñu xool aywa nekk ma ne ko ma ne ko nga gaa gën a mën a am nga takk gaa maanaam ñu jàkkaarloo man wala waa jaare ñu ne ñu naan instant mënta xeex nañu jël gaa di kenn du tontu on sa affaire fit nekkul wax man kay dama la kon da nga def émission bi rek pour yow nii doo paree nii te neexee mënoo laale man kay laale ma du ma. maanaam maanaam ma la waxee benn waay ma gars yi ma man kay pour nga xam man maa xeex nga jug ma def noonu jaar fu. waaw mu mujj fa mujj baal ma xam rek déet bul dem kaay c'est loo xam ne ñoo xam ne man dama isa dafa fu ma neex jaar. te bu ma dee ba ko su ma taxaw dépassé ma ko sa di wax te mosuma woon si làmb yoon am na yoo xam ne moom la waxi noonu moo tax ñàkk la man gëm sa bopp nekkul koy wax man nekk ci man xam naa may kan te ñi ma nekkal si ma nekkee àll gi ay pare ba ñu xam na may kan bu baax parce que beneen bi la coolo quoi coolo bi ko fi. su ma déggee ni Issa di waxee daal yaramam daa tàng. promoteur yi du ma lim benn tour nag Issa pare na pour pour pour bëre te nee ku ñëw ku nekk mu ja jàmmaarloo ak yow. mais demal la. Gaston xam na làmb. waaw combat moom la ma forsa combat bu neex la. forsa mais face ñoom sa rouge ma. combat combat yii di ñëw ci. bii bi waaw neex la. mais forsa soo. pare nga pour bëree ci mois bii. waaw ma yees par naa bëri. lu ne ci man dëgg man la. la daloon ci sos du la dalaat. non non mais na sa waay dëgg la soo ma yoon par naa bëri dama la. mais man nag gars yi sawaruñ ci man de sa waay loolu sax moo léegi gars yi sawaruñ ci man gars yi dañ may la bant guddi bant guddi na may laale man bokk naa xam bëri yoo xam ne nii doo dégg loo xam naa naa bëri bàyyi bëri doo dégg kenn ku may saa bu revanche su nga dégg ku ma may revanche yow. revanche daa mel ni soxla soxla nga xool. waaw ah, dama la asim nga xamante ni ku ma may revanche nga kaa dégg. kon dama ko ni ñi naan doom fit amuñu fit xalu may fit nga daan nit ki yow may ko revanche lu may fit bala ngay mel naa ko revanche sos mel naa ko revanche ñooy si mu loo mu ngi sama revanche laa dëggee mu sama revanche te ma soxla sama dund. torop loolu moom ma tey nelaw man saa ma nu muy nii damay booy dama mosaan daan sax daa wax mbabat dama la bàyyi dama lay wër foo si àdduna foo mu fayu incha allah mais làmb ji ni muy doxee nii baaxul de di ñaanal tam si président bi fi nekk na ko si borom may ndam di nuyu ministre sport yal na ko yàlla dafa jàmm yaa ngi te ñaanu bu baax man ko dëgg yàlla gaa ci nga laamu nga sonn si làmb ji la nga sonn si sport yëpp la waaw bi stade bi neexee nii stade boobu ma dem daa nooy nip illa ko ma berkan dafa daan stade bi da ngay bës ku lay daan dama lay bëre waaw daan xaw ba ngaa technique sa plus que daanu mais fee na suuraale gazon bi waaw ak tapis bi fee ma nga fee naa fa jëli plus que sànni ki ginnaaw du ma daanu man ñi ma naa xam-xam moo yàlla may ñu ne waa téeg loo xam nii puisque nii mu dem te duma te suuf parce que da nga ko xeman parce que eh, fii yërëm xam ñu laa yërëm mbëri mbëri mënta bëri laa yërëm fii yal na rey foofu de hmm. mbëri mënta bëri fii yërëm naa leen trop billaahi mbëri mënta ma gis nii macha allah ah yërëm naa gars yi soo amoon kàddu yu mujj loo ñu wax weex mooy Sénégal fi jàmm yàgg ñu xam ne réew mi suñu ko yàqee si bopp na nga yàqal te ñu fi ginnaaw dina yàlla nañu suñu borom xaar àjjana bu baax a baax maa ngi gërëm persi solo di ko ñaanal yàlla yàlla na ko bu baax yàlla dafa ko jàmm di gërëm sama grand frère Ama yàlla na ko yàlla defoon mairie Thiaré bu nekk mairie Thiaré parce que sama grand sama lépp la di nuyu Babacar ba gis Ndiolaay Alaaji Baara di nuyu siyaar ñëpp Njuga Bàcc Gay Pape Sène yaa ngi dégg di nuyu Bouba Ban Goote maa siyaar ñëpp képp ku may jàppal rek maa lay siyaare baax a baax a baax di nuyu jaar yi yëpp yéen a wasaare moom wax dëgg yàlla seen liggéey macha allah yal na yàlla may seen tale bopp. amiin amiin jërëjëf merci. gis ngeen nii lañ koy defee ci wasaare làmb li may wax chaque jour képp koo xamante na nga bokk ci làmb wala képp koo xamante na ngay dundal làmb mbala mbërum làmb foo nekk dinañ la fa fekk waxtaan ak yow lu jëm ci làmb waxtaan ak yow ci li xew ci dëkk bi gis ngeen maa ngi gëm sama cameraman bu ba bu ñaawul bi di kàggu. waaw maa ngi gëm si coach Iba Iba mooy coach Ikri Thiaré mooy entraîneur Ikri Thiaré bu bees muy Iba Iba da koy wax métti métti xale yi xam ko bu baax mi grand bu baax mi nit ku baax nit ki yaata mooy Ikri Thiaré moom mooy Ikri Thiaré mooy bi. mais kenn ku taxaw yaa entraîneur moom daa entraîneur kooku mooy seen entraîneur waaw ok merci. gis ngeen kooku mooy sa entraîneur kon jàpp leen ko bu baax a baax euh, di gërëm ki nga xamante ni nii mooy Marème borom Orange bi maa ngi koy nuyu bu baax a baax di ko gërëm ak moom ak doomam ak jëkkëram muy Tafa maa ngi leen di nuyu bu baax a baax euh, di gërëm sama président Lat Diop Lat Diop maa ngi koy nuyu di ko jaajëfal bu baax a baax di ko wax gis nañ liggéey bi euh, président LONASE na góorgóorlu yàlla baax na xale yaa ngi ci ginnaawam di ko jàppale di nuyu ki nga xam mooy Waly ñoom ñëpp maa ngi leen sant teggi ñëpp maa ngi leen di sant bu baax baax leen gërëm di nuyu Yacine nag boobu anniversaire bi di ko wax na ñoo ngi koy waaj bu baax a baax doomu ndeyu Soda euh, doomu ndeyu aadama di leen wax dig daje ba beneen yoon ci Wassare Lamb jërë ngeen jëf.